你爱我。 casa encorajada.

gars yi yaa ngi leen partagé leen merci ah. dégg nga crime de sang

foo dem bu la neex sax nga ne ñetti débat Sénégal ñetti débat moo fi am instant yi ñetti débat yoo xam moo jël bës bi suuf si ñuy sàcc jomaay arrêté am suuf si lépp ak euh, coowul Macky Sall dañ ko war a jàpp tëj ko ci kaso bi ak général Moussa Fall surtout ñaar ñoon dañ leen war a jàpp tëj ci kaso bi yeneen coow yi yi mooy fait divers te fait divers yi bu ñu wax fait divers Cheikh Ousmane sise Adamo Ahmed Ndoye loolu moo lëmbee réew mi man maa ngi Sénégal dama leen di informer yi nekk diaspora bi pour wax leen Sénégal temps yi lan moo lan moo lëmbee réew mi li lëmbee réew bi mooy Jomaay Sonko ñu ngi sol seen i bu ñuy dem ci hôtel hôtel Azalaay lañ dem jaajëf Brimel Azalaay maa ngi doog xam ne hôtel africain ay ceebu jën lañ fay togg ay euh, mbaxal puuj paaj xaw ba nekkate azalaay hôtel africain la ñoom Ousmane Sonko gis nga leen ba ñëwee ba léegi yore olof hôtel azalay valoriser la culture africaine juba jub jubal jubanti suuf si génne rapport yi loolu moo moo lëmbee mi beneen bi mooy Macky Sall dañ ko war a jàpp dañ ko war a tëj général Moussa Fall dañ ko war a jàpp dañ ko war li ci des fait divers Adamo Cheikh Ousmane Cissé ya def li ya def li Californie ya tëddee ki tëddee ki Sénégal yi loolu la ñuy seetaat ak euh, Mia gissé sax dugal nañ ko ci tey Mia gissé Mia Guissé nee nañ Farba nga mo ko doon doxaat Mia Guissé génn na nee dina fi baye paa yëpp naan day dem dina fa baye nan day dem ci pa bu xam nga mais lima bëgg ngeen comprendre moy daf ci am ño xam dañoo méré Macky Sall parce que ñoom Macky da leen mettital ku mel ne Coro Mandela bu toppee meram Coro Mandela bu toppee meram dafay bëgg ñu toroxal màkki parce que màkki da toroxal ndax moom dafa nekk jigéenu buyir di def ay live euh, Ousmane Tounkara avertir na ko ñaar wala ñetti yoon Ousmane Tounkara na ko ñaar wala ñetti yoon ne ko Coro Macky Sall mu ngi ñëw jàpp la gëmu ko ñun ñi sax gëmuñu ko waaye mujj nañ ko jàpp. ci affaire benn groupe xaw ma groupe terroriste la xaw ma lu ko tuddee xam bañ ko jàppee dafa nekk jigéenu biir mais Macky xool loolu ñu toroxal ko téye nañ ko fa un mois deux mois trois mois xaw ma sonn na trop kon moom bu dafay bëgg bu sañoon dañuy jàpp Marème Faye Sall dugal ko ci kaso bi bu sañoon dañuy jàpp euh, euh, euh, nu mu tuddati Macky Sall dugal ko ci kaso bi ki leen woon léegi sànq Barthélémy Dias moo ko jàppalu si li mu wax moom it bu sañoon moom nee dafa jour bi Macky Sall di élection yi Souleymane da ko ko laaj xam nga na dafa na la mom moy pa bi doon calmer boy avant Macky Sall je yi fa chaque jour comme pas nekkul paquetage bu dem ci cour bi yi moral waaye nee ba Macky Sall dàqee élection yi le 2 février ñoom seen yaakaar dafa dafa di di tëb di dal di saaga ba dañ ko obligé sax changer changer chambre ñooñu li ñu dund dafa metti safara la ñu dund ñooñu mënuñu baal makki Sall mama miss Shake dafa yomb ma toog fii di wax ne Macky Sall kenn waru ko def dara parce que dund ma li ñooñu dund Coro laa dafa dund nekk ci kaso nekk ci paquetage nekk jigéenu biir Macky Sall toroxal ko pa bi leen woon daf ko dund nee na jour bi ñu dàqee élection yi bi Macky Sall dàqee élection yi seen yaakaar moo tas dañoo yëngal foofu xam nga loolu waxoon naa leen bokk na ci li tax Macky Sall dellu ginnaaw tamit jël nguur gi jox Sonko booy rëba si bokk nañ ci de parce que am na ku wax kan la te kii moo ko wax Ndongo Diop mi ngi fa woon moom tamit Ndongo Diop Pastef nee na booy dañu ndoroon dajj bunt yi génn te bu ñu génnee direct palais lañu ndaroon dem parce que rëbës pale dafa sorow palais la ñu ndaroon dem parce que dañoo découragé xam ne Macky Sall bu dàqee élection yi ñoom dinañ toogaat kaso un an te bu ñu xasee toog kaso un an Macky dina fexe ba def troisième mandat te Macky bu defee troisième mandat dina toogaat ñoom dinañ toogaat kaso cinq ans dix ans foofu la ñuy déwee ba demee nag ba xam ne amatul lu ñuy moo tax ñu yëngal loolu bokk na ci li tax Macky Sall dellu ginnaaw Amadou Ba mi ngi koy trahir rëbës yëngatu na américains yi lépp lu am Sénégal xam nañ ko Ndongo job nee américain américains ñoo pression Macky Sall Blinken wol nako Blinken man bind naa ko ñaari lek di dénoncer Macky Sall ak ni def Sonko Ndongo job nee ay source yu wër lawyer yor nee na américains yi ñoo mujj woo Macky ne ko jëlal nguur gi nga jox ko Ousmane Sonko waaw jëlal nguur gi nga jox ko Sonko nga jox ko jumaay nga dem légui rew dafa am nu muy doxé rew dafa am nu muy doxé bu len top seen mer ba ne Macky la dañ ko war a jàpp dañ ko war a tëj bu ma déggee ay avocat mel ni kii du wax ki ma leen tegal nii soow Moussa soow mais surtout ma dégg koo xam ne dafa jege Ousmane Sonko muy mett maître Clédor mu ni Macky Sall dañ ko war a tra euh, euh, euh, traduire en justice pour haute trahison man loolu daf may jaaxal est-ce que Sonko moo ko wax mu wax loolu yaakaaruma ko parce que dëkk du doxee noonu dëkk du noonu dëkk da ngay xool loo xam ne boo ko defee dëkk bi du tàkk Macky Sall buñ ko jàpp bu koy jéem a utal dossier billaahi wallaahi taalaahi senegal day yàqu man lu leer laa leen wax instant yi bokk instant yi Sonko bu ne day jëkk day ñëw dal ci kaw Macky Sall ngir suuf si scandale yi ci nekk wala pétrole bi scandale yi ci nekk wala poste scandale yi ci nekk wala Dakar dem dikk wala terre bi wala géej gi ñuy jël jaay ko amul benn secteur booy jël Sénégal te Macky Sall yàqu ko ba mu yàqu amul moom ci boppam wax na ko dafa am ay dossiers yoo xam ne moom moo ci jël concam daal di ko ci teg li ngeen war a comprendre mooy da ngeen da xamul Sénégal dafa rëcc nee naa leen man Mister waratumoo waratuma woon ñëw Sénégal normalement buñu yalla bayu, buñu yalla abandoné yàlla billahi dotuma dugg Sénégal wala buma duggé Sénégal rëbës jëm direct loolu mo doon suñu destin mais carte ki ni ko yàlla dëppee moo jaaxal ñëpp ba ñëpp né Ousmane Sonko mi amna lu ko may ki yonent la man dama daan wax sama live Sonko bu génné ci li dugg palais nek président de la république man damay àllukaañ la jëm damay bay damay démissioner sama liggéey dem alukay di jamu yalla parce que man dama nan kon yalla amna waxuma ne yalla amul de man lola doon wax mais parce que man dama ne won c'est pas possible Sonko nek président wala jomay nek président ak Macky Sall nu mu ñu bi yakku serigne abandonné ñepp abandonné Macky Sall nan la def ba wax ak Antoine Diop Antoine Diop d'accord Macky Sall nan la def ba wax ak général Moussa Fall général Moussa Fall d'accord Macky Sall nan la def ba wax ak Mamadou Seck juste Mamadou Seck mandat de dépôt mu d'accord ko Macky nan la def ba wax ak euh, euh, euh, commissaire Sangaré ne ko dañuy jël réew mi delloo ko Sonko parce que ñom xamone nañ ko ah xamone nañ ne Macky Sall la ci tank yooyu la jëm Macky c'est un homme extrêmement puissant ku mel noonu il faut que ngeen nangul ko liko yalla may moy mooy fa contrôler APR dafa leen ne contrôler parce que dafa xam la affaire lu ñu bëgg xaalis mu te moom dafa yor xaalis ba pare xam seen xaalis fan la nekk ñoom ku ko ci ku bu ne ab du mbaw hey defal lii Abdou Mbow bañ ci saa si day tëj robine bi wala mu génneel ko dossier léegi jox ko Sonko ne ko gis nga këram bi muy tabax lii la ko tabaxee lii ak tabaxee ñu nangu waa après fi mu nekk nii Macky Sall moo leen téye Sonko a besoin de Macky. ndax assemblée bi Sonko bu fa demee gars yi mën nañu daaneel gouvernement motion de censure Sonko il faut que ngeen comprendre ko Diomaye il faut que ngeen comprendre ko Sonko ci boppam wax na ko j'ai parlé avec Macky Sall Macky Sall ba mu demee ba jàq jaaxle Marème Fay Sall moo doon problème bi waaye dafa am benn moment Marème Macky Sall dafa tourné ci Marème ne ko hey instant yi déglootuma la sax comme cour constitutionnelle nee nañ organiser le 31 yëf yi jeex na déglootuma la yoog Mansour fay fo leen dem xam leen déglootuma la man damay dem wax ak Sonko Macky dafa toog ak Sonko ne ko saawaay ñaari yëf fi am da ngay décider tok ci kasso bi dee Amadou Ba jël nguur ki hein ah? togat fi 10 ans wala wa ila ñëwal maag yow ñu job Macky lool wax Sonko ñëwal ñu job xamna pétrole bi li ci nek xamna souci euh, euh euh zircon bi fu mu nek xamna naa gi contrat de pêche yi FMI contrat yi euh euh pour ñu lebal ñu xaliss gis ngeen kérok ba mu démé euh feulé banque mondiale la xam ma FMI Macky Sall dafa tok ñu ngi naan Macron la représenter ministre des finances tok ministre de l'économie économie tok

avion bi yóbbuwaat ko Marrakech Maroc bi mu am kër ba mu installé ñuy doog wat avion bi mais loolu koo jubal rek nga koy may lan la Macky Sall defal Sonko ba Sonko jël avion bi di ko jox 10 jours wala même bu dee sax benn fat parce que Macky dafa toog ak Sonko mu ne ko saay xool naa ba xool on est frère xeex naa la façon xeex bu nekk xeex naa la façon xeex bu nekk.

yow da nga toog rek fi nga toog def nga fi di grève de la faim li booy waaji dee bu la neexoon Sonko boo nee taal leen réew mi ñëw génne ma ñu génn ma mais lan moo tax defoo ko léegi nag man bu ma xoolee loolu yëpp ba pare yow pare woon nga sax pour jël ku mel ne Habib Sy xam ne ci système la bokk ma jox ko nguur kon man xam naa ne yow xeexuloo pour nekk président yow da nga ne xeex pour Sénégal man nag ma dem jox la réew mi. moo gën ma koy jox Amadou Ba parce que Amadou bu jëlee réew mi day nangu APR ci man siège bi da koy nangu daal di ma éliminer daal di jël sama parti ba pare Amadou Ba wóolu ma ko dossier Prodac mën na ko génne génne yeneen dossiers yi ne man maa yàq réew mi comme ça moom mu mën a setal darab te am na nu muy demee ñu ne dañuy def mandat d'arrêt international te mën na la sax bàyyi yow Sonko xool naa ba xool Ousmane tu es mon frère kaay ma jàppale la ma jox la réew mi Amadou Ba Je suis ci élection yi yow dama lay n'est-ce pas Je day génn ex-Pastef dama koy mais je li ma wax en 15 jours la de mois ci en un mois la Macky Sall def li yépp nga xamné ne borom doolé la borom doolé la dafa pendant 12 ans parce que en deux semaines même pas deux semaines nan nga mënee defee loolu yëpp nga dekkaliwaat pastif, ex Pastef ñoo dundaat nga génne Sonko génn ñu dem hôtel directement xam man hôtel hôtel Azalaï bii lañ demoon sax def fa seen conférence de presse si suba si ñu génn dem dem campagne pendant ce temps minuwaal Amadou Ba nga téye xaalisam téye ay t-shirtam port loolu bu dul waxtaan bu mu waxtaan ak Sonko lan la ba pare danaan Sonko danga may bàyyi danga may may jàmm danga may jàmm sama kër Mermoz bu laal sama siège APR bu ko laal mais yow boo doon looy def da nga naan ko non non Macky la du yow dama lay rey li nga rey quatre-vingts personnes yaa ngi ni tëj ma sept mois ah nga yaakaar ne noonu ngay dawee déedéet bàyyiwu ma la yaay kan amul Atepa amul Tine négocié wu ma lol ngeen bëggoon ko def mais fuk son ko defé mais Macky Sall danaan ah kon xaram yow do genn Amadou Ba mo ndaroon gagné parce que Macky day dem ba yàgg mu ne kon amoo pexe bàyyi mu Amadou Ba jël loolu ngeen bëggoon ko def son ko am ay ennemi ku melni Barthélemy Dias bëgg ko dé ci kaso ku melni eh, Ahmed Khalifa Niass ku melni Khalifa Sall ak yenn serigne yi genn rëy lamine Adji Sarr mais soo Sonko ne serait-ce que pour pour Barthélemy Diaz rek pour am dëgg ci Barthélemy rek day naan Macky ok parce que man li ma intéressé du yow xam naa ne sàcc nga deux cent ba cinq cent milliards say nit sàcc nañu ay milliards milliards sàcc nañu suuf waaye loolu mën nañ ko nanguwaat loolu mën nañ ko nanguwaat lu ci bëri mën nañ ko nangu li gën a am importance mooy nga delloo ma réew waxuma fa la pétrole bi nek waxuma fa la or bi nek contrat jeni ma défarat réew mi Macky yàgg naa la wax man awma problème ak yow yow ya am une haine viscérale envers moi France 24 dem naa fa mané je n'ai rien contre Macky Sall il a une immunité lool la Macky Sall signé ak Sonko Macky xamné ne Sonko nit deug la Sonko lu la wax da koy def gor ca wax parce que tamit Ousmane Sonko do tok ak Macky Sall ak Diomaye do len tok ngén waxtaan. assemblée sax dañ ci dañ ci discuter man loolu mu wër la sonko nan maké nan sonko lo bëgg assemblée moy am dina wax am euh, euh, ki Abdou Mbow lo bëgg jallalé nga jallalé soxlawul sax ngay def élection anticipée am na ñu né élection anticipée du am septembre Moussa Sow wax nako Moussa Sow dafa jang droit nee na élection anticipée septembre mënul nek parce que bu nekkee budget bi day yàqu dootuñu am budget xaw ma ne am na daal nu mu ko expliquer donc Macky donc Sonko il est obligé de faire avec Macky Sall et Benno Bokk à après assemblée nationale il est obligé de faire ça. loolu nag képp ku ne Macky Sall Sonko da ko war a jàpp loolu yëpp day yàqu tey Sonko bu waree Macky Sall si li ñu waxante dañoo waxante dama lay delloo réew mi dama lay jox réew mi loolu waa affaire yëpp génn nañu wax ko Mame Mame Bour Diao wax na ko barki dem ba Sonko moo doon. Macky Sall moo doon euh, directeur campagne Diomaye Mame Boye Diao sax wax na ko Moussa Sow moo ko njëkk wax am na waa ji tudd Gissé Abdoulaye Gissé génn tamit wax ko loolu dafa leer ci bopp nañ Macky Sall Sonko Diomaye la bëggoon mu gañee ak Sonko parce que loolu moo gën a sedd ci moom Cheikh Bara Ndiaye yàgg na ko wax Sonko jël nguur gi moo gën a sedd ci Macky parce que Sonko tal na leneen lu dul naan day topp Macky Sall di ko tëj président kenn mënu faut que vous soyez réaliste les Thioro Mandela la les Moussa Sow président kenn mënu Tech tëj parce que il faut nga jaar assemblée nationale doo ñëw rek ne da nga koy yóbbu tribunal il faut que mu jaar assemblée nationale ñu wax ne dafa def haute trahison mais assemblée Sonko ñaata député la fam 23 xaw ma 26 loolu mënul jàll pour mu il faut que mu avec ak Khalifa Sall ak Barthélémy te loolu ñun duñ ko ko Sonko waratul liggéey ak Barthélemy wala <coughs> Khalifa Sall ba àddina di tukki même genre Ahmed Aïdara yi sax dañ leen wara écarter même Ahmed Aïdara dañ ko wara écarter parce que ñooñu ñep dañoo abandonner Sonko kon nak genre Moussa Sow yi Moussa Sow yu wax ne Macky Sall dañ ko wara a tëj ana leen jàngu leen politique Sonko a besoin de Macky Macky Sall ñun du suñu problème mu neex leen mu naqari leen Macky nous a sauvés il s'est sauvé aussi en nous sauvant mais mu neex leen mu naqari leen Macky Sall daf sauvé parce que bu bàyyi Guinée ñax Guinée yi jël réew mi fan la jëm gars il faut que di réfléchir même pas un mois mu déclassifié lu mat cinquante rapports même pas un mois Amadou Ba bu jëloon nguur

waaye diil diil la gor te wax diil diil la dañoo def amnistie ci affaire Adji Sarr yaa ko nangu looloo tax nga jomax jomax yi ba pale un deal est un deal il faut respecter le pacte de du Cap Manuel il faut le respecter boo leen ko respecté wul billaahi wallaahi taalaahi réew mi day takk lu leer laa leen wax Ousmane Sonko bu respecté wul le pacte de Cap Manuel maanaam Macky Sall du ma la topp pour haute trahison bu ko respecté wul Sénégal day tàkk te seen nguur day yëngatu parce que amul benn nit ci àdduna bu nekk dix ans waaw amul man nag bu ma ne la cap le pacte de Cap Manuel bu ma kenn yaama di tax xam ngeen fi may waxee moo ne Sonko ak Macky Sall même bu dara juboo nañu ci lenn duma la japp jox ma réew mi foofu la yem de buñu wax pacte waxuma ngeen yaakaar ne Macky Sall moo contrôler Sonko wala léegi duma la japp jox ma réew mi loolu laa tuddee pacte du Cap manière duma la japp jox ma réew mi man noonu laa tuddee la cap du cap du Cap manière bu ko Sonko respecté wul qu'est-ce qui va se passer kay foofu dem France nee na samedi bii di ñëw dañu war a def benn marche.

Sonko bu commencé di japp ay nit général Moussa Fall Mame Boye Diao non pas Mame Boye Diao général Moussa Fall commissaire Sangaré Antoine Diome Malick Ndour japp wa APR da ngeen yakkan ne waa dañuy tok rek diko ko parce que Sonko ñu wara japp amna am ci ño xam ne ay sëriñ lañu dañ ci am intérêt ñu am intérêt ci ci ci ci ci kër yi muy tok ñoñu dañuy jël sen nerf bi ñu commencé tar rew mi. dinañu taal ay bus Dakar dem dëkk gis nga am na ay bus ñu fi taal barké dem barkaati dem mën nañu commencé di taal wal Walfadjri dañu dañoo yor moyen Macky Sall dafa yor moyen il a entre 200 et 500 milliards dafa am réseau renseignement Antoine Diom il a été très efficace contre nous ay éléments am ñoo fi nekk ba léegi ay éléments am ñoo fi nekk commissaire Sangara dàqaguñ ko de. Mamadou Seck kenn daax ko Macky Sall tay bu Sonko ne da koy da koy attaquer Macky da fay il va se défendre avec ses milliards réew bi day jaxasoo violence day tak billahi wallahi tallahi motax tax ngeen bayyi Sonko xamna na def bàyyi leen jàmbur lu mu war waxante ak Macky Sall mom xamna ñun Macky Sall du suñu priorité ma jox leen ben exemple te loolu dafa difficile da ngeen di perdre sen temps mais Macky kenn du ko tëj vous perdez votre temps ana yaaya Jammeh Macky Sall kan bon Yamé ak Macky Sall kan Mais bon mais Macky Sall moo fi jëlee Yamé Est-ce que matul pourtant Gambie ñu ngi def tout pour Le pour diapo. président rapatrié ko c'est pas parce que pour nous, américains français Europe français européens Macky Sall Macky dafa liguel Macron Macron bu ko sacrifié parce que Macron bu ko sacrifier day wax kon yeneen yeneen dirigeants africains africain dañ naan ah Macron mi jarul andal Macron mi dara andal la xolal leen mu def Macky Sall loolu c'est pas c'est pas c'est pas facile ya jàmmee ngi ni ken mënu ko rapatrier te pourtant xam nañ fu mu nekk kon bàyyi leen Macky Sall bàyyi APR wóolu leen Ousmane Sonko te Sonko liñ koy wax moy na def ndank président Diomaye nañu def ndànk suuf si ñuy nangu nañu xool li ñuy nangu ak lu ñu dul nangu nañu def ndànk-ndànk sinon dëkk bi day takk lu leer laa leen wax buñ fi nekk di def chasse aux sorcières amnistie la ñu voté dañ koy respecté ndax ci amnistie bi ci la ex ci la Pastef dundaat gars yi il ne faut pas être doo doo xool li la arrangé ci amnistie bi nga jël ko li la arrangé wul nga jël ko sànni ko déedéet amnistie dañ ko voté affaire Adji Sarr lépp lu ci takk général Moussa Fall li mu def makki Sall lu mu def lépp effacé nañ ko waaye ñu nekk rëbës bu ñuy nettali da nga naan Macky mii dañ ko war a jàpp léegi léegi yóbbu ko. billaay ñu nekk bu ñu nettalee da naan Macky mii waruñu koon bàyyi mu génn waaye nag mooy indi amnistie amnistie bi ci lañ bàyyi Sonko Sonko nekk président da ngay ni nangu. il faut savoir pardonner Rwanda on a métti 800 000 personnes 800 000. Sénégal 80 morts Rwanda 800 000. 80, ña xoolal 800 morts Kagame ba mu ñëwee dafa woo gars yi ci ay centre ñu ñu fait faire, psychologiquement réconciliation nationale Nous Rwanda na euh, euh, euh, bien que amnistie amnistie là. léegi nag boo demee ba jël assemblée dans deux ans parce que gëmou ne élection anticipée dina am né ko Moussa Diop man gëm na né sax élection am anticipée man normalement xamna né dina am parce que Sonko il faut mu jël assemblée mais lool quatre il faut que ñu dem ba septembre ñu ngi ci lan mais juin juillet août septembre des na quatre mois quatre mois yi bàyyi leen Macky Sall fàtte ko même cour des comptes yi duñ ci japp ken parce que ay procureur makki ñoo fi nekk ba légui ay juge makki ñoo fi nekk ba légui gis ngeen lu gaaw gaaw Bassirou Gueye rapport 2023 changé na dindi tour yëpp Sonko bala mu mën dara il faut que mu purger justice purger administration génn nitu makki dugal ay juge bopam d'ailleurs tay commencé na amna ben juge bi ñu bu sant Mbaye buñ né il est proche de Sonko mom la Sonko dara jël def ko cour suprême wax na len ko de ñàkk fayda di wax non ñun duñu def ko Macky Sall duñu jël suñuy procureur dañu am ay procureur indépendant di jaay démocrate boo ko defee di nga xam ne lépp dëgg la Afrique du du États-Unis ay indépendance de la justice amul amul Afrique parce que africain dafa gaaw a dérapé africain kenn du ko jox liberté bu ëpp xool leen Pa Babacar Jond Jon xool leen sëñ Modou Moussa Dieng li ñuy wax bi fi Macky Sall nekkoon est ce que sañ ñu ko wax Macky Sall Abdou Bara di attaqué Macky Sall gis nga ni ko def ay affaire indépendance de la justice amul Sonko na ñëw mu def tank mu jël ay juge mu mu jël ay procureur mu RTS mu jël ku mel ko xamne day de Pastef mo wara nek RTS Papa, di wax ne man je suis démocrate dama invité ñep lolu amu fa nous ku Papa RTS mu fa en longueur de journée en boucle di attaquer Sonko on a d'autres priorités

waa benn ba waa APR votel ko di ngeen xam ne Sonko ak Macky ay ay copains lañ léegi pour le moment xanaa boobu waa di ngeen bàyyi di ngeen may Macky Sall jàmm ñi ci des nag ñi ci des bàyyi leen Mame may Niang bu dee dafa daw loolu mooy suñu victoire Mamour jàll bu dee dafa jékki-jékki daw suñu victoire la Adji Sarr daw na suñu victoire la jambal jaañ na daw dafa am immeuble vingt milliards la xaw ma immeuble ñaata milliards na daw bàyyi ko fi ñu récupérer immeuble yi la question c'est pas nga jàpp leen di leen rey wala di leen tëj parce que loolu day taal réew mi da leen di bàyyi ñoom comme ñoom dañoo tiit dañoo bëgg xaalis bàyyi leen nag xaalis bi waaye nag bu dee li ñuy wax fat du xaar sax Sonko woo ko fat boobu mooy dem ci jomaay ne ko hey maa jëloon lii maa jëloon lii maa jëloon laa rek jomaay dafa soxla xaalis Jomaay dafa soxla xaalis ñoom Farba Ngom seen bopp ñooy jëg dem ne ko Jomaay dix milliards ngi nii suuf si maa lii maa ko jëloon ak lii am may ma jàmm Jomaay ne la ñu signé ñu dem. loolu mooy xel ay Sénégalais lañ comme ñun nañu nangu lu ñu war a nangu ñu bàyyi leen ak tuuti seen wërsëg la parce que dañ ñoo delloo réew mi nag nañu waxante dëgg Antoine Diome daf ñoo delloo réew mi de général Moussa Fall daf ñoo delloo réew mi de. bu la neexon ñu xaru tok fi 2 ans xaru not nit ñi dëkk bi tak après finalement dinañ leen ray mais bu la neexon ñu euh, j'aurais pu se braquer se braquer mais lii kenn musu ko gis yow nga def ay ñaawteef yu reuy ñepp gis ko ba pare nga jël nguur gi delloo ko ñi nga doon def ñaawteef loolu fa la am man de mosuma ko gis fen mais man loolu daf ma jaaxal ñaawteef yi ñu wax yépp moom la général Moussa Fall def aji sar def ko Euh, Antoine Diome def ko ñoom ñep def ko ba pare jël nguur gi jox ah sax loolu doy na acte boobu acte bu may saluer la parce que nit rëccu nga dem ba ci biir nga rëccu moo gën nga dëgër bopp yàlla mooy baale ñun ñëpp on est tous des pécheurs ñun ñëpp dañuy dañuy mais Macky Sall limu def Marème Faye Sall def dem ba ci biir ci réew mi joxuñu ko APR joxuñu ko PDS joxuñu ko kenn ñu ne ko Pastef lañ koy jox te Pastef mooy seen pire ennemi loolu c'est un geste que je salue man nag loolu man la engagé Mister Shake voilà kon nag li may wax ci gars yi rek mooy focus leen ci liggéey bàyyi leen menace bàyyi leen tëkku dañuy tëj kii dañuy rey kii ñooñu ñooñu fu mu nekk seen àdduna tukki na adduna amul solo Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla yërëm te te yéexal ñu wax ne adduna amul solo ndax yow nga daan dem ñu lay wax ay milliards pour ay combat ah nga ànd ak Macky Sall mais gis nga loo am am boo amee ay milliards milliards lan la ko jëriñ dem na France faju dem na fu ne mais finish làmb am demba Bombardier Franc Franc ci lañ ko tàggee yalla du jum de xool fi ñuy Gaston yalla du combat choc la relève la nouvelle génération gagné la vieille génération moy Sonko ñeu jël place Macky Gaston meng ci la génne waxu ñu dara lu ñaaw ci mom parce que mom Ken musuko ko dafa sacc ken musuko ko dafa saga Sonko wala dafa def li au contraire des fois ñu dal ci Macky Sall des fois mu dal ci Sonko mais ñepp xam nañ ne ci système bi la bokkon li tax makoy cité cité ko pour parce que ñun ñepp jour dina ñu ñëlal monsieur cheikh dee na ñun ñëpp ay dé aduna amul solo lo fi jël di jël ay terrain di jël ay après fan la mujj Gaston Mbengue dee na li nga tok légui ñu ne la makki dee manam fay Faye han yalla na ah? yex nak Mister Shake dee Sonko dee Yep, ay misal la ñu yàlla di indil on est tous sénégalais on est tous sénégalais te Sénégal yalla bëgg nako. ko ndax lii am fi man mosuma ko ci ben dëkk dëkk bu wara tak takul. voilà motax mané ma il faut savoir pardonner maître Clédor da nga jege Sonko Bayil di wax ay waxu trahison Macky Sall affaire yooyu bu dé ñoom Sonko ñoo la ko wax lo. ah man lool neexuma c'est trop tôt pour parler de tout ça. bàyyi leen jàmbur bàyyi leen Macky Sall Macky dafa réeroon il a fait énormément de dégâts <laughs> ma toog mu ne ma muy Macky moom muy Macky Sall moom xanaa dañ ko jox dañ ne ko nga yàq Sénégal mais yow suuf si bi ñuy wax li ci nekk Dakar nekk mais xanaa te lii yëpp Macky xam na mu gis Moussa Diop di jënd un milliard oto mu koy seetaan Racine Talla di jaay boppam oto mu koy seetaan yow da nga naan wax Macky Macky dafa dem ci biir mu découragé xanaa ne ma daal sama yoon nekk ci. man daal sama yoon nekk ci troisième mandat moom intérêt sama yoon nekk ci dafa réeroon Macky mais nak c'est un Sénégalais au finish il a fait ce qu'il devait faire il nous a rendu le pays gars ba bàyyi couper euh inshallah allah continuer di leen la information monsieur Cheikh la maa ngi au Sénégal gis ngén gis ngén li moy Sénégal gis ngén ko de gis euh, euh, euh, euh. booy bi ciseau la yor ciseau yorul sax machine à coudre lii mooy liggéeyam tailleur ambulant <coughs> day yor ciseau di yëngatu boo amee tubéy bu xottee ko nga ñëw fay ko cent franc mu ñëwal la pendant ce temps Cheikh Niass nañ ko dimbali moom mais Cheikh Niass Cheikh Niass war nañ ko xoolaat quoi xam nga boo demee ba nekk milliardaire da ngay dem ba dof Cheikh Niass war nañ ko xoolaat il n'est pas normal ce Cheikh Niass là n'est pas normal bu tay nga ñu and ak Sonko suba nga ne Amadou Ba moy meilleur profil bu ñëwee nga ne da ngay Macky Sall dang koy déloger ñëpp yow après nga dem ci Macky Sall diko tag tàgg ma dem fay sama yaay la ba pare nga ne dañ la wara a dimbali bo yaangi ni terre ambulant mais Sénégal neex xol len paysage bi xol len maa ngi ci nak bi depuis 2 heures de temps presque tangul pitch yaangi sap dëkk bi verte na ah ah man de ma ngi sant yalla au Sénégal takku kon nak jamm ci lepp lépp xaj on est tous des frères wa aper opposé wu len té bu len fi nek di jëm xajamal dañoo bax de way ñakku ñu fayda dé ku fi lapi lapi dinañ dinañ la defal bagage man la laa dé way ñakku ñu fayda dé Sonko duñ ko seet duñ seetaan ngeen ray Sonko. parce que amna ñu ñoo fi mu nekk nii loolu lañ bëgg ray jomay ray sonko parce que un mois ñu bëgg changer réew mi ci un mois di nangu ay souf loolu système bi duñ ko sétat. sonko na gën a renforcer sécurité il faut qu'on sorte le bâton parce que génn di accuser sonko naan ko yaa def lii yaa def laa yaa def amoo benn preuve dañ la war a convoquer à la police comme ni Macky Sall doon def au chef de la ak article 80 ñoom sonko il faut que ñu commencer wane léegi ne duñ leen bayyi nga nekk fi di di di bëgg duñ ko ñun ñu opposé normalement mais pas génn di di de Sonko yaa def lii aji ko def temps yi def attention très voilà suivre information yi album bu album bu neex l'affaire maa ngi génne jomaay day jomax jomaxi ba pale maa ngi génne sonkorisation way boobu di génne Fouta Tampi defaragum naa ñetti biit mu des yeneen ñett léegi album bi pare incha allah c'est pour mon plaisir ah, album boobu moom c'est pour mon plaisir xam nga maa ngi ciy mais vraiment yàlla na jàmm yàgg Sénégal neex na picc ngi sap naaj bi neex na ah. ngeen fleur ya nga maa ngi sant yàlla bu baax ci bu jeni ci bu ginaar ah démb lek na ya sa ginaar bu jaar yon ah ah macha allah vraiment maa ngi sant yàlla Sénégal neex na Sénégal neex na ah, vraiment ma ngi len di ñaanal yeen ñep yeen yi nga xamne ne mala Mollah Morgun kay sof ma ngi len di ñaanal yeen ñep ngeen ñew te bo leen ñewé bu la kenn kenn bañ len sonal waaw ay boy Malika mais lool nak bo len bëgge mu nekk da ngeen di bayyi tamit yenn live yi bàyyi leen laaj leen laay bi di xorom di menacer loolu ñun dépassé nañ ko dépassé nañ loolu mënuñu gagné ba pare di nekk ci opposition bi comme ni ko Mollah Morgun waxee on a gagné mais on se comporte comme comme l'opposition loolu il faut il faut mu jeex nañu nañu focus ci job quoi parce que booy ba léegi dañoo sonn waaw Sénégal nag li tax maanaam dafa neex parce que dama indaale tout xaalis boo yorul xaalis du neex xaalis bi moom nii lay def. xaalis bi moom day disparaître comme comme moom doo comprendre xaalis bi day dépensé léegi da ngay retiré cinq cent mille trois cent mille léegi mille jeex doo xam fu mu dugg loolu rek mooy cat bi mais jàmm daal ci la lépp xaj man daal maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaanal Ousmane Sonko yàlla na gudd fan yàlla na Jomaay Fay gudd fan waaw nañu renforcer seen sécurité baax a baax a baax a baax nañu renforcer bu baax le combat ne fait que commencer man waa woo lu ma leen de système bi wóolu ma leen am na ñoo xam ne fu mu fu may wax a yéen ñu ngi jéem xool nan lañuy def par rey sonkoo nan lañu def par rey Jomaay bu ñu reyee Jomaay Amadou Mame Diop mooy nekk président du ñu bàyyi du ñu tàyyi du ñëpp nag du waa affaire yëpp nag mais cinq personnes am na ci cinq personnes yoo xam ne instant yi rey Sonko lañu bëgg bu leen leen xeeb de billahi wallahi tallahi mais di gis Ousmane Sonko di sol yëre olofam am di romb nii comme saa chaque jour mais loolu day dagg seen xol <coughs> jomaay am escorte yor avion am na ñoo xam ne nelawutuñu ba jomaay nekkee président ba léegi nelawutuñu ñu ngi jéem a xool nan la ñuy def dina ñu ngi dem ci ay sëriñ lu ne ñu ngi koy def même bu dee cinq personnes Sonko na xam loolu Barthélemy Diaz waruñu toog ak moom Barthélemy Diaz waruñu toog ak moom pour rien au monde mais nag ñoom waa parce que dañoo bëri maslaa bu mu leen bett de bu mu leen bett de bu Sonko recevoir Diomaye ba kii Barthélemy wala Diomaye recevoir ko ñu nekk fa di nuyu oui monsieur le maire on va vous appuyer sur les projets patati patata on est frère bu mu leen bett de Ahmed Aïdara loolu la bëgg moo tax fu mu toog di yore bale tey gis gis naa ko mu génnewaat bale bi ci revue de presse bale Diomaye bi la génn te moom xamul ne ci ñu war a bale la bokk ndax yow yaa ndaare buntu yow ak Malick Gakou ndaare yaa ne woon Malick gàkku mooy sa candidat bu ñu waxee nee naa leen bu ñu defee audit géejawaay Ahmed Aïdara amu fa cent cinquante dinaa ko summi dinaa ko dinaa ko kaala man munu ma gëm ne amul ci suuf soosu munu ma ko gëm <clears throat> parce que yow na ngay nekk maire deux ans nga gis loolu yëpp am waxoo nga bàyyi ba léegi nga doog wax ne man maire laa musuma délibéré amoon pouvoir délibéré peut pouvoir les. ñu ngi xaar ba dossier Ahmed Aider bon dof dofloo ba am tu géejawaay wala problème di am problème de mètres carrés là, beaucoup. Ahmed problème parce que vous tu toog yaa ngi boo fa amul dara nak ah dina la sum dina la dina la kala dina la kala de parce que yeen ñep da ngeen yakkorone makki mo fi tok motax ku ne di def lu ko neex parce que da ngeen yakkorone Sonko du jël ngur gi Ahmed bu amul suuf fofu dina ko kala man gëm naa amna fu amna fa terrain mais bugguma bakkar lu tel ne way littoral ñuy dagg di séddale di dag di séddale yow nga nek maire waxoo nga xaar ba léegi génn bale di wax lii ak lii rapport bi lii ak lii nañu xaar bu ñu couvrir kenn waa Pastef fii fa am terrain dañ leen di dañ leen di feeñal ay ay inspecteur des impôts et domaines Macky Sall daggal leen au nom de quoi te ñoo ñëpp bu si bari bëri Pastef lañ bokk buñ na lépp feeñ suuf suuf dañ ko war a nangu filaawo yi ñu tabaxaat ko ñu defaat ko fa sampaat ko fa mais wa geedji way amul xel yi na non non dañ ko wara dañ ñu ci wara jox ay parcel fofu kenn waru fa tabax dara fofu dañ fa wara def ay filao sino geedji day ñew nang wa si yeen est ce que ça va dag nañ filao leg nga ngeen nañ leen fa tabaxal ay kër geedji di avancer ay bu la ñu sonnal mais Ahmed dara li nga def dafa yomb yow xari bu dem defal bu feeñ fi am dara demal ci biir ça va gis nga Ahmed Aïdara nit da ngay assumer ngay assumer yow malik Gakou moy sa candidat da nga abandonné Sonko malik Gakou moy sa candidat nga jël avant ndaare buntu kus lekk katu ñam mam kon defal ni malik Gakou nga tok nga nopi xamna c'est fini defal ni gatché fall avec sa formation de militaire j'ai J'ai fait l'armée de l'air, j'ai fait l'armée de mer, j'ai fait l'armée de terre, je sais faire la guerre, personne ne peut faire terre. Gatier Fall, je suis le mandataire, plénipotentiaire, je suis le mandataire extraordinaire avec mon parti, le RF, e, le, le, le, e, le, PRP, parti des retardataires, prioritaire. il a joué il a perdu mais Ahmed Aïdara ak Cheikh Niass genre yi Senegal tax Sénégal du dem nit da ngay am dignité da ngay mel ni Bougane il a joué il a perdu mu téye la mel gisul leen ko fen mais yow nga contre Sonko trahir Sonko Sonko def la député nga trahir ko ànd ak gàkku jël avandaare ba pare léegi yor bale di wax ne da ngay ñëw pour ñu woo la te tamit tam ñu woo bu mu leen bett bu jomaay woowee Ahmed Aïdara bu mu leen bett ah, ndax mu ngi ni ñu woo Cheikh Bamba Dièye lan la fi def Cheikh Bamba Dièye la def bañ koy noome ministre xaw ma DG may wax ñaan ma non non parce que Saint-Louis il faut ñu am benn nit boo xam ne dafa am parce que moo fa nekk patati patata Aba Mbaye ah bu ñu amul Cheikh Tidiane Cheikh Bamba Dièye bu ñu demee élection Aba Mbaye dañu gagné Aba Mbaye bu ñu jëloon Ouzin Keïta Aba Mbaye mënu ko gagné Cheikh Bamba Dièye Sonko nag xam na li muy def. mais man Cheikh Bamba Dièye mi demoon ci Jolof waruñu ko sax woon woo daan ko dañ koy jox ay DG ak yooyu Cheikh Bamba dafa dem ci dialogue ba ñu naan dafa dem ci dialogue ba di xas Macky Sall bu xasul Macky est-ce que moom bokkuloon ci ñu demoon palais ñoom Mimi Touré yu bindoon lettre Macky Sall pour pour pour ñu annuler élection est-ce que Cheikh Bamba bokk ci woon sax mais nag de temps en temps dina am ay benn benn yu rëcc moom dafa rëcc sëriñ wax na te gars yi loolu ñu wax dañ ne li tax Sonko jël ko parce que Saint-Louis il faut ñu am nit bu fa am base affaire yooyu yooyu loolu lañ loolu lañ ko expliqué Cheikh Baba Dièye mais warul bokk Ahmed Aïdara ak Diomaye di fotow wala ñu jox ko dara dina ma metti trop man maa ñu ma fi attaqué kenn amul gu si poste xaw ma daf may seetaan xaw ma jaajëf maa Sonko de ay du Mbodj waruñ ko jox dara ak orom yu bari yoy dara waruñ ko jox parce que dafa demone ut candidature xaba ah ah ñu jël ndare buntu kus lek katu ñambu ma ay da Mbodj ndare 93 la jël parrainage ma mo don 93e sur 93 yalla du joom man maay yaay sonko man ak samay or yu bëri maay yaay sonko boo nekkee yaay sonko lu ngay ut parrainage te sonko waxuloko nga jël ndaare Ahmed dara jël ndaare ba pare léegi ngeen ñew bëgg bokk Ahmed naan ki moy sama yaay ay dama moy sama yaay bëgg dund ci kaw nit ñi maire bu nekk fi di def ay revue de presse fan nga ko gis yow scandale yi am way yépp suuf si yow dem nga réglé ko nekk fi di def ay revue de presse parce que loolu moo la jox tour léegi loolu nga bëggaat di jor balé di di neexal jomaay Diomaye bu recevoir Ahmed Aïdara wala wala Barthélemy Dias dinañu tooñ surtout kooku Barthélemy Barthé il a trop de mal dem leen ngeen seetaan waaye ji mu leen wax léegi Jooyatu TV boo leen paree ci live bi dem leen direct ci Ouleymane une heure de temps ngeen déglu waa ji li mu wax ne moo ko Barthélemy waji limu wax ne batalim moko def budé batalim moko def billahi wallahi taala jomay waru recevoir batalim dañ ko wara genné assemblée nangou maire bi Barthélemy day foowe bakkan day foowe carrière nit day foowe famille nit nit ko am jabar am ay dom nga koy bolé han ah, di wax mo bëgg taal sa bëkkër budé dee dëgg la bañu japp ko koku ñun war nañ tok ak moom daañu am lu expliquer mu nan maire de Dakar budget 53 milliards 60 milliards nañ ko bàyyi Dakar mu def lu ko neex bu mandam jexé ñu jëlé ko fi mais taxaw ak Barthélemy Diaz wala Khalifa Sall mais politique mo seet gis ngeen makki mujjina wax ak Sonko politique mo salté makki Sall mujjina dem di ak Sonko mais dafa am ño xam limu def moy yow ki moo tax nga nek maire ki moy man xamna ni dina dama ka bañ mais man dafa ma bet quoi Ahmed Aïdara ma bet bett nit nit di nga soxor di nga soxor Miu yow lan la Sonko def da ngay ànd ak malik Malick Gakou malik Gakou joxu la dara ay dara deful lu ñaaw mais man geste bi mu def moma metti ndax ñun dañ lay cité def na ben way buma way Sonko way buma way Sonko ay dara la ko terminé troisième mandat dañ ko fi téré sama way njaago Sonko non la ko terminé troisième mandat dañ ko fi Macky dégage troisième mandat dañ ko fi téré loolu lañ la xamee woon ànd ak askan bi mais dem ba ci biir di xeex Sonko loolu laa ko mere waaye Bart moom moom moom moom moom c'est le sommet parce que moom da doon wax boo leen taalee sama kër kër Ousmane Sonko laay taal mais loolu mooy lan Ahmed Ndoye booy bi Ndoye booy bi sant Ndoye laa boo leen ma saagee ba saaga Ousmane Sonko mais loolu loolu waxu lan la te yow nee nga journaliste nga Seneweb yàq sa carrière comme ça léegi Seneweb dàq la Amendo dañ koy dàq Seneweb parce que bu génnee Sonko lii Sonko laa Sonko la mais lu ko fi jar ay boo yoo xam ne bëgg tur jar na nga nekk fii di wax bañ la fi nekk di la def ci 72 heures nangu leen dogal bi Sonko yàlla moo ko fi teg mais dañoo soxor soxor soxor soxor billahi am na ñoo xam ne seen xol yaa Ousmane Sonko man xam nga maa ngi wax boobu ba léegi mënuma sax ba dagg bi billahi wallahi ta'ala Sonko amna ñu xamne bu ñu sañon mu dé tay tay tay tay mom ak jomay bu yobo ñu def très attention ñu renforcer seen sécurité xex bi xaajagul bay jeex bo leen dox dof loolu dëkk bi dina takkat renforce na jomay renforcer sécurité Sonko renforcer sécurité te ngeen téla a détermination duñu nangu kenn di génn di ñu saga ci aji saar ak lu mu mënti doon affaire ñaari tur lu mu mënti doon duñ ko permettre kenn amul Jamra amul sëñ Modou Bousso Dieng amul Babacar jon amul Adama Fall public ay Aïssatou Diop Fall duñ leen permetre offense au chef de l' état wala au premier ministre bu jaree ñu créé loi bu bees offense au premier ministre ñu def comme Macky nu mu doon def ku fi def ku fi attaqué Sonko loo xam ne du dëgg ñu convoqué la buñ ko defee benn yoon ñaar yoon ñu noppi daal di opposé normalement dem assemblée boo leen amee ay idée ngeen ñëw RTS ngeen waxtaan mais toog fii di bilikaan bilikaan bëgg taar réew mi di wax ay góor jigéen fii dugg na fii génn fii loolu nangul kenn gars maa ngi dem nag deux temps